rabbul karimul mulwaasi wa yufaddilu wa wasilati abdan ladayhi mufaddilu rabbul karimul mulwaasi wa yufaddilu wa wasilati abdan ladayhi mufaddilu رب كريم واسع ويفضل ووسيلة عبدا لديه مفضل داخل ومغر خلاص لو ممن بالمستوى من صعب لا يجلو قد فدلوا أسكى صلاة المسألة من والتدل رضوان من يا من لوجبك أحمل لك كالكري لك جوستي لك نيتي لك خربتي ووجني ما المنسل لك ملبسي ويرعاتي ما لويا ولك المداد مسربي والمالكلو أبلي دام تماتو ودرتدي في مسكني توبا جوغلن ماغل سيرين توبا في مسكني توبا في مسكني توبا التي لك تنسلو أركت يا ليا وانتقى ليا رجيا وإليك قصدي رجيا لك عرلو هو مالك ونافع ورائف وواسع والجميع المجمل مالك له سرق وحرب ودواء وكسل بار لبار يكمل وجل متوجه بالمستوى وبعلي بدر رفقة مالك ملو رضوان من دا قيدا وعليمه wala rafiq mun la se yatataxfalo day fun dayi fun yartaji bi mul xira mi man yu karimu man yasa wa yubajjilu walaytu an lahwin laxin mubdiran lilahi bil xuraani man mun silo abqi bi wa bi qimmatin may nabi wa jallasi man amma wo la yasalu abdallah wo wa insuquli مدى وعلي جل جلاله أتوكل قبل المنى وعلى وسيلة سليا يا من يخدم من يسعى ويفضل سالك فلو لاي ku bëgg sëñ fallu ku bëgg sëñ fallu ku bëgg sëñ fallu sëñ fallu oh. rabbi wala ilaha illa laa oh. surtout Mbàkke mu suubi ngam na baar ba machine ba joow na soobu leen ñu dem gaar ba jug leen taxaw ñu sant Sëñ Fallu guddeeg bëccëg yu jublu Sidi Falliloo alaaji Fallu laay ku la yaakaar doo ko benn sew tur du fay yaa gënu tur yaakaar jaa ngi Sëñ Fallu laay baayu meen ku sopp Sëñ Fallu booy dee tabbi jànnatu woo waaye ku noonu borom ndindi boy dee dem naari yàllaaw bay remba weesu na xel bu yàlla moo mën fal sëñ fallu mbàkke la jël xejal ko moore yi kuy xam ne ngay wut a xam sëñ fallu mii ku ko xam nit ñëpp lay wut a xam tey xool ceew di la roy alaaji fallu laay alaaji fallu laay ku sopp sëñ fallu ku sopp sëñ fallu ku sopp sëñ fallu ku sopp sëñ fallu booy dee tabbi jannatu o waaye ku noonu borom dindi booy dee dem naari yàllaaw wa baadu man Moussa Kalaamullahi maay bëgg a way alaaji fallu laay sëñ fallu sëñ fallu sëñ fallu sëñ fallu sëñ fallu sëñ fallu sëñ fallu fayalaaw alaaji fallu laay alaaji fallu yaa xew na nu xewaale ëllëg yomal xiyaam nga bon nu yóbbuwaale sëñ fallu amul moroom yal na ñëpp am jàmm yal na ñëpp am jàmm tey nag damaa xaw sëñ bi nag tey damaa xaw a waa damaa wallaay tey damaa damaa wéru barki sëñ Touba Ibrahima tey ku ma waxoon sax ni ma dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa dinaa jàng sax du ma ko gëm ndax damaa jóge Poroxaan damaa dem nawel jóge naawel Kawlax laa jàngi ji woon maire Fan Mbàkke Ñas bisam boobu talaata la na ko monté dugal ko ci internet bi loolu yow mi yaa ma ko ñaanal dama laa wax ne la ba may ñëw ci yow di dajeeg yow di la teel biteelu Evian bi di ko téye boobu kenn xam ma boobu ay dàll lay daaj boobu damay kole ay dàll di fas ay bakkenu dàll ñu may jox juróomi dërëm juróomi dërëm yooyu moom lay dajale su ma la mësee su ma la mësaa gis damay daw damay daw nga jël sa loxo di di ko raay sama bopp naan nii ne ma dina baax de dina baax de ma ànd yow ba tirminis nga ñaanal ma ma wàññeekuwaat kon maa ngi ñaan bu baax a baax a baax maa ngi ñaan baax ci barkeb sëñ Touba suñu borom guddal sa man de bu ma la naree wor yàlla ma gis sëñ Touba man bu ma la naree wor yàlla bu ma gis sëñ Touba te lii ma lay wax nii dëgg la ci man. barki seexul xadim loolu de boo ko defee barki suñ bama gudd fan lay wax ni loolu boo ko defee suñ bama gudd fan li ma lay wax nii dëgg la ci man lu wér la ci man lu wér la ci man ibrahima seede ma lu wér laay wax lu wér la barki seexul xadim yàlla nañ ànd ba ca kanamu sëñ tubaa yàlla nañ ànd ba ca kanamu sëñ tubaa damaa mës a gént ak gént wax naa la ko am ku may dàqi am ko may dàq yor jaasi barki sëñ tubaa mi ngi nii wax naa ko ma ñëw ba ci moom sëñ jaxate daal di yëkkati loxoom daal may mboq kooku wàññeeku wax naa ko ko kenn lu yow ci man xam nga sama situation xam nga li may dox yërëm nga ma man nag la ma la waxoon rek lu jaadu ci man nang ma ko wax lu jaadu ci man man bul ma seetaan may dox nii rek dee ma éduqué dee ma ñaan waaye dee ma wax dëgg lu jaadu ci man ay dóor sax bu jaa bu jaaroo duma ma amiin xam nga booy booy booy booy booy xettilee doo ko sikku ku xool sikku nit rek doo jaamu yàlla waaye moom moom mandaak mandaak togul tuuti